fifi xam nga xam nga man peine de mort lan moo tax ma ne munul munul am Sénégal. fifi yaa ngi may dégg. yow rek lay dégg moom fifi ñaata nit ñoo nekk ci prison yi ñaata nit ñoo nekk ci prison yi te defuñu dara. dëgg la mais tey jii boo appliqué woon peine de mort di nga rey. ah. di nga di maa lay dégg. waaw. mu ne bu tey bu ñu appliqué di nga rey ba rey ku deful dara. yaa ngi may yaa ngi may dégg. du demee de. parce que bu ñu nee code pénal. Arabie Saoudite ñu ngi nii dañoo def code pénal te duñu rey ku ñu war a rey. lépp dañ ko mën a man tamit xam nga. wa kër famille laa ne man duma duma tuxu. yow doo tuxu duma tuxu de kër famille rek non yow moom mais mais mais ay géwél xam naa ne ku fi dugg pour rey moom doo génn doo génn kay non man si code pénal bi laa bëgg man du ma de kër gi moom waaw ci loolu laay ñëw ci loolu laay ñëw fifi waaw mais mais xam nga loolu loolu c'est bien applicable au Sénégal tey da nga naan euh, Sénégal tey ay lobby Sénégal xam nga lan moo tax xam nga xam nga rey mënul am Sénégal suñu waxantee dëgg xam nga lan moo tax non mami voilà tëjal micro Momo duñ teel ba def wéet nga wax leen waaw mais mais man. Ah, bëggoon kii mooy ci affaire euh, kii bi waay si wax léegi affaire euh, kii bi code pénal bi affaire pour ku rey ñu rey la. c'est mm-hmm. bien applicable mais Sénégal benn problème la am parce que Sénégal dafa bëri lobby. loolu doo nga mm-hmm. tax du dox mais buñ ko teree tegee ci yoon. ah mm-hmm. normalement Arabie Saoudite yi dañ koo teg te musuñoo rey ku ñu warut rey. dañuy rey ki def. noonu lay demee mais Sénégal nag da ngay ñëwaat ah, doomu diw la sëtu diw la sëtu nangam nangam la suturaal leen ko nangam loolu mooy tax du dox mais kanta bu ñu appliquer texte yi kese day dox parce que fii doo fi rey kenn te wóoru la suñu police bi encore une fois la jiiñ meurtre te defoo meurtre mën nañ la jiiñ nag ay affaire viol te violé woo kooku beneen affaire la viol violé woo bokkul ak meurtre te meurtre woo loolu bokkul voilà donc. te en plus en xam ne koo xam ne dafa dem dafa dem dafa ba ba ba jàpp ko. mu avoué les faits ne carrément man maa def. kooku kay war nañu appliquer la loi. waaw da lay ba moom avoué ne carrément man maa waaw loolu kay leer na waaw loolu kay yoo fekkoon tey maanaam koo xam dañu ko jàpp par wax mais koo xam ne dañ laa jàpp ci saa si nga ne nga ne carrément euh, man man maa def mais bu ñu bu ñu appliqué gum léegi léegi la loi mais dañuy enquête ba xam ba ci biir exactement ka dañoo ay complice am mais ku rey dañ war a rey est ce nii loolu la ñu war a imposer fii nii Sénégal ku rey dañ laa war a rey ku sàcc dañoo war a dagg sa loxo maanaam imposer lay loi a xam de de de telle dëkk boo gis day am ci man j'ai bien peur que li day day jaxasoo dina dina metti torop si suñu réew xamee xamee parce que bu ñu naxante ñun xam nañ suñu dëkk ba du muy doxee voilà mhm. loolay wax. waaw fii sama xarit la xam na commissaire bi nangal wala juge bi nangal nangal. yow nag yaa xam dëkk bi yow. yooyu yooyu mooy tax loolu du dox. mais loolu lañ fa war a dindi nag ba mu jeex tax ba réew mi buñ ko bëggee defar tam dañ waxante dëgg foog muy metti hmm? foog muy metti voilà foog muy metti foog muy am première victime yi première yu affaire yi di dal. waa waaw ñi boo gis cent benn la commencé xëyuñu xëy rek compté cent dañoo xëy compté un deux trois buñ ko commencé ne ñu xam ne ñii caaxaanuñu di nga gis ñu bëri dellu ginnaaw mais bu fekkee ne doomu diw dafa jàpp rey doomu diw dafa gëm kooku mu rey ba rey jël bakkanu jàmm ba waruñu ko rey dañ ko war a rey parce que loolu la diine waxtaane loolu la diine santaane mais senegal ce sera un grand problème pour ñu appliquer loolu man xam naa loolu même buñ ko tegoon ci charte yi léegi léegi nii maa la wax ni kenn buñ ci defee benn nit di ci benn nit boobu lay yam man maa la wax nii du du du mujj fenn waaw parce que intervention yi dana bari wax ja dana boo paree ñu diaboliser la rek teg si xam naa kii njëkk a rey moom nit ki kenn bañ génnee après kooku moom am na problème waaw boo génnee diaboliser salaamaaleykum dañ koy maaleykum salaam Abdourahmane Abraham Ibrahim Xaliilullah la moo def ça va na ngeen def c'était juste pour euh, ma leeral leen benn mbir parce que man personnellement je suis juriste ok donc tout à l'heure dama dégg koo xamante ne dafa ne dañoo war def peine de mort d'accord mais Sénégal da ngeen waroon a xam ne ni que peine de mort amoon na fi donc dañ ko abolir woon dañ ko abrogé woon en 2004 mhm. mhm. donc dindi woon nañ ko donc loolu daal législateur bi war a ñu xool na lañ koy mettre en place ok donc c'est une euh, mesure préventive mhm. benn ñaar muy par rapport ak euh, ku rey ba ñu jàpp la ba ñu tëj la dix ans quinze ans nga génn amul fen au Sénégal parce que. ok c'est à perpétuité boo consulter le code pénal loolu lañ la wax c'est à perpétuité à lañ lay tëj et en matière criminelle le maximum c'est vingt ans ok. ok le maximum c'est vingt ans ñaar ñett c'est par rapport à l'aveu gis na en matière criminelle mm-hmm. l'aveu ne lie juge maanaam juge bi du mm-hmm. tënku ci xamante ne dafa ne rey na rek ci moom rek la war a tënku pour ne ah, kon procès bi jeex na non juge d'instruction bi d'abord day def bi dafay dem da ciy dem pas à pas ndànk-ndànk surtout juge d'instruction bi parce que le gars comme comme il l'a dit <laughs> c'est c'est c'est trop simple ni mu ko waxee ak ni mu ko defee raison pour laquelle dañuy reconstituer waat fee yi. d'accord. est-ce que yéen a ngi comprendre. Mm-hmm. léegi nag il faut d'abord régler cette situation avant que ñuy jéem a waxaat encore ci waxi peine de mort d'accord c'est bien c'est beau mais tamit il faut toujours dire que ni y a pas de crime euh, parfait parce que à chaque fois dina am loo xamante ni day lâché. donc c' était juste ma contribution à la matière parce que dama dugg gis leen ngeen di waxtaan. raison pour laquelle je voulais juste ah, parce que sénégalais bon mais sénégalais gis nga boo xamul droit lu ci gën a ndaw lu ci gën a ndaw doo même booy doxati sax si tali bi benn policier wala kenn dootu la raison pour laquelle gars yi dañ leen ko war a initier depuis le début. parce que fii ku xam droit am rek ku xam devoir am rek et puis c'est fini quoi dootoo ko mën a naxati dooto ko mën a defati loo xamante ni daal vraiment dina fi nekk di sonn di daw gauche ak droite. donc c'était juste une contribution que je voulais faire. am na solo loolu parce que leeral nga ñu lu bëri ci code pénal bi et c'est important aussi ñu xam ko donc Abraham waaw léegi sama gars yi boo leen ci amee contribution rek.